والقلم وما يسطرون asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziare ñëpp euh, ñi nga xam ne ñu ngi nuy bàyyi xel ci chaîne YouTube bu Yaatal Mbindum Alquran bu c 3 ci jongante alquran bi nga xam ne baaxoo nañ koo def di ko jagleel itam ñi nga xam ne ñooy euh, ñi nga xam ne ñooy ndongo daar yi ak ñoo xam ne rek warti nañ alquran man see bokk ci loolu nag comme ni ngeen ko xamee ñu ngi nii tey si Daarul Marnaan kër Serigne Touba ngir def phase bi nga xam ne moom lañ tuddee phase demi-finale. Euh, kon man samay wax du ci gudd ak euh, lant noor rek lay doon boo xam ne dañ ma wax loo Baye Fallou mu ngi fi teew xam naa bu teewoon moom euh, moom rek moo waroon a jël kàddu waaye damaa jot ndigal ci moom. ndigal loo xam ne daa jóge ci El Hadj Serigne mu jaar ci moom wàcc si Serigne Dame Touré donc ñu wax loolu ma. ma war sant mbooloo mi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñun liggéey bi euh, rawatina waa commission scientifique ci njiitalu Serigne Khadim Ndiaye xam naa ci kanam tuuti dinañ ko dégg kon liggéey bi mi ngi noonu euh, alaaji Serigne sant nañ ñëpp jaarale ko Serigne Fallou mi nga xam ne mooy jëwrinam ak Serigne Dame Touré. Euh, mu wàcc si man mi nga xam ne maay chargé de communication bu Yaatal Mbindum Alxuraan kon ñi ngi sant ñëpp di wax ne itam liggéey bi daanaka day doog a door ginnaaw bi ñu defee dépôt candidature bi ba pare ñu ñëwaat tey euh, def dépouillement bi si lu jàll ci ginnaaw waaye tey ñu waroon a def itam li nga xam ne mooy phase demi-finale bi war a tànnaat itam ci ñeent fukk yi ko doon def tey euh, yeneen ñaar fukk yoo xam ne ñooy dem final si kàttanu yàlla kon du ñu guddal Alaaji Sëriñ daal sant nañ ñëpp ñëpp ñu ngi bokk ak moom liggéey bi ndax xam na ne moo ko waroon defal boppam waaye ñoom ñii nga xam ne ñooy waa commission scientifique ak ñenn ci waa C3S ñu ko àndal ñoom ñoo ngi koy defee ñoo xam ne moom bu ñëwoon doon ko def sax du ko mën defal noonu boppam kon sant nañ ñëpp ci euh, baatu euh, Baye Fallou Seck ak seen Dame Touré laa doon waxee kon loolu rek laa amoon lu ma doon jàllale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu leen joxaat rendez-vous kon ci yeneen activités yi ñëw. muy euh, correction bi nga xam ne moom lañ génn tey final demi final bi ñu génn tey correction bi ak itam final bi nga xam ne moom lañ war a jëm waajal itam cérémonie bi nga xam ne baaxal nañ ko def ci biir weeru koor yi incha allahu rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu euh, bokki jullit yi Sénégal bokki jullit yi ci àddina bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di di leen ziar di ndokkeel mbooleem jullit yi euh, di leen xamal rek ne tey ñëwati nañ ci Euh, at mi ngi xam ne mooy deux mille euh, vingt deux vingt ci concours euh, national bi nga xam ne mi ngi jëm ci bind alquran ku ko dàq bind te gën koo mokkal gën koo rafetle ci ñi nga xam ne ñooy candidats yi ci bokk loolu nag xam ngeen ne société C3S bu moo koy amal muy loo xam ne ñoo ngi tey jii ci Touba al Mahrousa ci résidence Cheikhul Khadim radiallahu anhu di fi amale de demi-finale bi demi-finale bi nag euh, xam ngeen ne ñu ngi toll ci quarante personnes yoo xam ne xëy na euh, danañ ci ñëw ndax Serigne Moustapha Diop mi nga xam ne moo jiite jury bi dana ñëw ci processus bi ñu tàmbalee ak niñ ko seggee ba fi ci toll waaye li ñuy wax rek mooy quarante yooyu nag euh, nekk fanweeri góor ak fukki jigéen kenn ku ci nekk ñu tegal ko robo ci alquran mu bind ko robo joo xam ne du ko xool bind ko ci condition yi nga xam ne moom lañ ko ko sante Euh, ñu jox leen ñetti waxtu yoo xam ne ci lañ toog ak euh, niñ ko war a defee ba pare nañ ci tey euh, kon nag ñuy séentu ne buñ defee correction bi am na lu war a génnaat li ci war a génnaat ñooy ñooy dem final nan lay toll ak nan lay tëddee loolu ba tey comme ni ma ko waxee ki nga xam ne moo ko yore dana ci gën a ñëw ak yéen ñuy sant borom bi subhanahu wa taala nag ci taxawaayu alquran bi nga xam ne taxawaay bu yaatu la ci Sénégal waaye nag. mu am ak jagle ci euh, euh, ci ci ci ci goo xam ne ci wàllu mbind euh, Sénégal def ko am ci rawe ko ñu bëree bëri la ca des itam mooy C3S ci njiitul Serigne Seck mi nga xam ne moo ko moo ko jiite gis-gis bu rafet bii mu ci am di ci def alalam di ci def léppam ñu koy ñaanal yitam suñ borom subhanahu wa taala mu fay ko te itam mbir mi mu egg fi nga xam ne weesu na sax fo ñu ko njorte ndax jamono ji ñu toll nga xam ne lislaam ñi ngi koy xeex fo ne ñëpp xam nañ ko waaye te lislaam ku koy xeex mënoo fee romb alquran eh, di lakk kaamil di ko di ko sobeel di ci lu ne ñu di ko ciy def yooyu yëpp lii ab taxawaay la boo xam ne daf ñoo war a gën a soññ ñu gis ne kon ndekete alquran eh, jàng ko baax na mokkal ko baax na waaye gën jaa baaxa ci nag mooy boole ci man koo bind yaxal ko nga xam ne tey bu alxuraan réeroon maara day taali xaw ma ban dëkk wala ban réew waaye fii ci Sénégal moom mën nañ koo bindaat te kenn du ci mën a dindi dara lool nag jéego bu mag a mag la xam naa dañuy gàttal rek jox sëñ Moustapha mi nga xam ne moo jiite jury bi mu wax leen processus bi fi ñu tàmbalee ak fi ñu toll ak fi ñu jëm incha allahu taala ñuy ñaan yàlla mu eggale ñu ci eh, cat la ak résultat yu am solo sàmm ñi nga xam ne ñoo doon bind sàmm ñi ko toppatoo sàmm ñi ci def seen ki ci def alalam sàmm mboolem eh, julit yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, bokk yi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi eh, fii ci kër Serigne Touba gi di Daarul Mannaan ci Touba ti yi di alxames tolook ñeenti fan ci weeru rajab ci atum 1444 dëppoo it. ak ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier tey jii mooy bis bi nga xam ne moom la concours yaatal mbindum alquran bi nga xam ne société C3S bu Alhaji Serigne Seck euh, moo ko doon euh, moo koy taxawee tey jii moom lañ doon def demi-finale yi demi-finale yi nag niñ ko xamee euh, jiitu woon na ko beneen liggéey boo xam ne ci lañ tànne woon Euh, lu mat ñeen fukk ñeen fukk yoo xam ne incha allah taala ñoom lañ invité tey jii demi-finale yi ñeen fukk yooyu euh, fanweer yi góor lay doon euh, fukk yi jigéen lañuy doon kon ñooñu tey ji ñoo daje fii ñu doxal ak ñoom concours bi concours bi ni mu daan doxee lañ ko doxale mooy ñooñu kenn ku ci nekk daañ la jox laaj boo xam ne danga koy fekk ci biir enveloppe bu ñu kaste enveloppe boo xam ne dal nga ci laaj ba ca nekk mooy sab laaj Euh, la nga ciy bind yi dina toll ci robo ci quran karim dina toll ci robo bu defee it kenn ku nekkit ak sa jataayu bopp euh, ñu jox la euh, sa toogu jox la sa sa bagage bind nga bind robo boobu fa mu tàmbalee ba fa mu yem te doo ko xool fenn da koy bopp bind ko maas ko suqi ko sàdd ko ak lépp lu ci war kenn ku nekk dana ko def ba noppee jébbale aw kayitam bu ko defee nag euh, incha allahu taala léegi jotaay boobu moom jeex na këyit yëpp di ñeen fukki candidat yi daje na ci commission bi nga xam ne mooy euh, scientifique bi moom moo koy seet nag xayma ko ba génn ci waat ci ci biir ñeent fukk yooyu ñu génn ci ñaar fukk ñooy dem final ñaar fukk yi fukk juróom yi góor la ak juróom yoo xam ne jigéen la kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant bu baax mbir mi ci li ko tàmbalee dix heures ci dix heures ci suba la tàmbali woon Euh, ba une ci bëccëg mu nekk ñetti waxtu alhamdulilah ñëpp ñëw nañu ñëpp bind nañ ci jàmm mbir mi dox na ci teyu bakkan ñu ngi rafet njort na incha allahu taala résultat yi ci bàyyi ko dana nekk résultat yu xam ne yu dal xel la résultat yu am solo la xanaa di wëññi ko waat di sant bu baax jëwriñu kër gi di C3S alhaji sëriñ Seck di ko jaaree ci jëwriñam sëriñ Fallou ak sëñ daam ak bokk yëpp di santit baax it comité bi nga xam ne ñooy wàllu xam-xam bi ci biir euh, concours bi ci njiital sëñ Xaadim Ndiaye ñaan suñu borom mu dool nu ndimbal incha allah ñu dox ba àgg ca final ba incha allahu taala te ñëpp fekke ko suñu borom yombal lépp te gërëm liggéey bi te nangu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. كنت بنعمة ربك بمجنون